koo xam ci xurum xaq mi ngi ci biir kaso bi boobu ak léegi yàgg na wér-gi-yaramam woyof lool njabootam ne lu ko dal du kenn ku dul nguur gi nañu ko génne ci kaso bi ci nu mu gën a gaawee ndakaaru taw yu njëkk wàcc na fi waaye taw du taw boo xamante ni mën nañ ko méngale ak nawet waaye ci Sédhiou moom la leen tiital du dara nag lu dul dënnu yi euh, nguur gi jóg na nag taxaw temm ngir balaa nawet bi di teru euh, ñu mën fa taxaw askan wi ba dënnu bi du leen sonal Covid 19 bilan bi yokk na ñeenti nit ñàkk nañu seen bakkan tey mu nit yoo xamante ni nii ba feebar bi teroo ba léegi ñàkk nañu seen bakkan euh, point du jour bi tey euh, ni ñu ciy def mooy euh, lii di cas importé yi yokku na ñaar fukki nit ak juróom-ñaar nañ ko bitim réew dugal ko fii ci biir réew mi fukki nit ak juróom-ñeent moom la ñuy wax cas communautaire juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ñoo am doom yi jàngoro ji ci téeméer ak ñeent fukk ak juróomi nit yi nga xamante ni seet nañ leen waaye bi feebar bi teroo ba junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki nit ak cas juróom-ñett moom test lañu def démb. téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett euh, wér nañu journée bi ñu jagleel ñii di puune yi euh, ñu gën ko xam ci albinos ñoom nag jog nañu taxaw temb euh, yuuxu nee nañu nguur gi daf leen seetaan seen njiit ne boobaak léegi amul lenn lu ñu def ci ñoom tranche de vie tey dañu ko jagleel ñii di puune yi ñoom nag nee nañu ci seen kàdduk njiit Evra Elestine Danfa nee na moom kese moo nekk professeur ci puune yi euh, dellu si na ci jafe-jafe yi nga xamante ni ni am na ko ak bedd gi leen di beddi euh, Kora News dañ ci ànd ak Binte Diallo li ci yéenekaay yi Mouhamed Aliou Ba la ñu ci àndal Abdoulaye Diop moo ne ci xarala gi Mamadou Lamine Samba. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média 94 point 0 ci Ndakaaru ñu tàmbale kook accident bu mitti bi nga xamante ni ni am na ci Ziguinchor benn camion bu yab suuf moo mbëkk ñaari xale euh, yoo xamante ni nii dañu nekkoon ci Jakarta xale yi nag dañoo ñàkk seen bakkan kenn ki dafa am gaañu gaañu yu métti métti accident bi nag mi ngi am ci diggante Jibok ak euh, Butut euh, chauffeuru camion bi ma nga ñu téye. Euh, ca fi nga xamante ni nii moom mooy ca police ba ngir ubbi ab euh, l'enquête benn waxtu du une teg na ñetti minutes ci rajo Futur Média. ak RFM kumpa jeex na. benn soxna mu ñàkk bakkanam fële ci Kafountine gannaaw bi nga xamante ni ab kankurang tiital na ko ah, gendarmerie nag ubbi na ab enquête foofu nga xamante ni moom mooy ca jululu ngir xam mbir yi fan la mujjee am na ci ñaari nit yoo xamante ni déglu nañ leen eh, ci fan yi ñëw nag bu ñu ci woowaatee ñaari nit bu mu bett kenn ah, ci jamono ji nag néew ndaw soosu ma nga ñu tekk ca l'hôpital régional bu Ziguinchor ngir def autopsie bi eh, xibaar bi nag ñu ngi ko nangoo ci suñu correspondant ba ñu toogal foofu ca Ziguinchor euh, di lamin Ba njabootu xurum xaq Abdou Karim Gueye lay wuyoo euh, ñoom ñu ngi yuux wàllu nee nañu euh, abdu Karim dafa feebar feebar bu mitti ndax ay opération yu bari sax def na ko waaye boobu ak léegi nag ñu ngi ko téye ci kaso bi waa këram nee nañu lu ko dal du kenn ku dul nguur gi Abdourahmane Gueye mag la ci moom ñu déglu ko ci téléphone ndaxte Diop. Abdou Karim dañ ko jàpp tëj ko ci anam yu ñëpp xam ci muy doon joytu loo xam ne ñëpp a ngi ko doon jooytu mu joytu ko nit ñu mu jureel ko ñu tëj ko te teew ba mu ko jooytoo ba ñu koy raté condamné sax ñoom def nañ li mu doon wax donc li ma bëggoon am na ko pare. wante li tax ma gën di wax tey mooy Abdou Karim Wérou dafa feebar ñëpp xam nañ ne ci juróom-benn weer nga am ci ñeenti opération dafa métti te jàngoro ji wérul te symptômes yi commencé waat na di ko dal ca prison ba gëmuma ne ñoom war nañ ko mën a gérer médecin bi wax na leen ni nañ ko ko andil su fekkee ne am na problème ñu ko yóbbu pavillon spécial ndax maladie bu sérieuse la léegi nag ñoo xam bu fekkee ne xam ne lu ñu nam ci moom mu ngoogu ku ñu jàpp la même dans le sac mu def mu jël alalu réew mi di ko di ko yàq froseer ko nga may a jàpp ku Karim Gueye Karim feebar na ñëpp xam nañ feebaram te cet exemple dafa grave bu ñu ko libéré lu ko dal ñoom ñoo ko teg dara lu grave ndax li mu wax ñu dañ ko exécuté ba pare ba kutee ci kaso bi bàyyi sàcc yi ñu dem loolu du dëgg du yoon Abdourahmane Gueye la yuyoo mag la ci euh, Abdou Karim Gueye mi nga xamante ni mi ngi ci biir kaso bi Ndakaaru ak Sénégal ak li ko wër euh, te yeew nañu ak taw mu ànd ak ngelaw lu bari euh, ca Fatick nag ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo jiite météo bi nee nañu du nawet bi moo terewgum ñii di béykat yi def ndànk rek ndax lii ñu seen ni du nawet Aminata Goudiaby taw dem yi nag ci région bu Fatick commune bu Mbélacadiao moom moo ci gën a am quantité bu bëri ndaxte lu tollook vingt-neuf virgule sept millimètres wàcc na fa waaye laataa loolu nag guddik àllarba jàpp alxamis am na ay huit yoo xam ne amoon na fii ci région bu Fatick waaye buñ sukkandikoo nag ci service régional bu météo mu ni nekkul taw yoo xam ni am na solo loolu ba fii mu ne sax li ñu santaane ci ñi nga xam ne ñooy baykat yi mooy ñu def semi à maanaam ji lu mel ni dugub ak lu ni mel bañ a jiwagum gerte Ibrahima fay nag sax nee na ji na dugub ba pare baykat la ci village bii di Mbudaay nekkee ci commune bu Ñaaxaar dañoo firu rek ñuy wax faru waaw jiw nañ dugub bi la ruuj di xaar taw waaw il faut mu tooy nga door a ñemee jiw parce que li li fi wis sax mënul saxal dugub waaw kon dugub rek ngeen ji fi mu ne waaw dugub rek a jiwagum maam koor moom itam ca village Mboudaay la dëkk nee na dugub waaye gerte moom day xaaragum ba gis taw bu bëri soo ko mën a ji préparé tool bi rek pour mu gën a set rek pour boo

rural bu Fatick ne ñu fi mu ne jiw yeeg yu ni mel commencé nañu bu yàgg di ko joxe ba fi mu ne sax daanaka quantité bu bëree bëri jot nañ koo teg ci loxo ñi nga xam ni ñooy baykat yi nekkee ci région bu Fatick Aminata Goudiaby Fatick RFM. ba léegi dañuy desandi ak yéen ci nawet bi ca Sédhiou moom li leen tiital du dara rek lu dul dënnu yi euh, gannaaw sax taw na fa waaye nekkul taw boo xamante ni demee na noonu euh, lii di dënnu yi moo leen sonal lool euh, moo waral Max Euclide Kanfouni dem. jege ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy nguur ga foofu am na lum lañ ci wax. bëri nañu ay accident ñu nemmeeku te ndëndi di leen di waral niki it niki it ci dex bi ci wàttu nawet bi di ay jafe-jafe yu indi liggéey bëri kilifa yi nekk ci diwaan bi ñooñu sax taaw temb ngir fee wàññi ci lu bëri l' accident nuñ ko tàmbalee ci département Sédhiou Ibrahima Fall mooy préfet département Sédhiou. donc taw bu démb bi dafay wane ni hivernage tàmbali na. mu nekk lu am donc euh, loolu fay wane ni nawet bi tàmbali na te biir taw bi dafa am ay risques yu ci nekk ay risques d' accident liés à mais loolu tamit mu nekk ay risques yi nga xam ne ni ñun chaque année dañuy def sensibilisation ci rajo communautaire yi pour ñu ci ndox mi pour ñu leen ci nu ñuy fexe ba noyade yi du am mais tamit euh, ci wàllu foudre bi tamit dañuy sensibiliser loolu tamit euh, sensibilisation bi mooy gunge wala mooy ànd ak trottoir yi nga xam ne état bi at mu jot dina ci installé benn nombre ci département ci taxawaay boobu sax aar askan wi ci watu nawet bi am na liggéey bu ñu tàmbali dem ci saytu yeneen ci partenaires yi it yokk leen ci noonu sax at bi ni am na juróomi ñett ci yooyu ñu ci yokk waaye teewul des na ñu amal amal couverture département bi yépp ci kaddu kilifa bi. soo xoolee deux mille quinze deux mille seize deux mille dix sept deux mille dix huit deux jot nañu un lot de paratonnerres yi nga xam ne dañ koy installer à des endroits stratégiques mais soxla nañu ba tey ay paratonnerres pour am maillage bu mat même boo amee maillage bu mat tamit loolu du doy ndax mënoo actuellement nii def fu waaye lu ñu mën mooy ñu boole ko ak sensibilisation sapeur pompier nga xamante ne ñooy amal liggéey protection civile boobu ñu ngi wéy di installer ñaar fukk ak juróomi ñaar ay paratonnerres yu ñu fas yéene amal ci diwaan bi ci yeneenu département yi Max Euclid Kamfani ci Sédhiou ngir RFM Max Lenkin Kanfoni euh, benn waxtu di une heure teg na juróom-ñeenti minutes xibaar yi di wéy ci RFM. Pour RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen ñu wax euh, ci coronavirus euh, bi nga xamante ni nii mi ngi lëmbee àdduna bi rawatina réewum Sénégal euh, ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti test yi nga xam ne def nañu ko téeméer ak ñeen fukk ak juróomi nit ñoom ñoo ko ci am juróom fukk ak juróom-ñeent mooy ka contact ñaar fukk ak juróom-ñaar di cas importé muy ñi ko jëlee bitim réew téeméeri nit ak euh, euh, fukk ak juróom-ñeenti nit mooy ka communautaire téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett wér na ci ñaar fukk ak euh, ñaar ñu ngi ci bérébu Sowétas yi ñeenti nit génn nañu àdduna démb docteur Aloyse Waly Diouf di directeur cabinet du ministère de la santé moom la ñuy déglu. ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett test yi ñu def téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo positif maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom juróom-ñeent ay cas lañ ñaar fukk ak ñaar di ay cas importé fële ci aéroport international Blaise Diagne fukk ak juróom-ñeent di ay cas communautaire benn ci Point E benn ci Matam benn ci Thiaroye benn ci Mermoz benn ci Sicap Mbao benn ci Thiadiaye benn ci Tivaouane benn ci jurbel juróom ci Touba benn ci Colobane benn ci Médina benn ci Grand Yoff benn ci Plateau benn ci géejawaay ak benn ci kër Mbay téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malaat yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeenti malade ñàkk nañ seen bakken démb ajuma 12 juin 2020 ci suñu service hospitalisation ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey daleko ci cas bu njëkk bi Sénégal am wàññi nañu ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn cas yoo xam ne kaayu yu positif la ñetti junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci wër juróom benn fukk ñàkk ci seen bakkan mu des ci suñu service yi malade yi nga xam ne ñu ngi leen di traité junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar docteur Aloyse euh, Waly Diouf euh, euh, fële nga xamante ni moom mooy ca Diourbel nag ci ñeent ñi ñàkk seen bakkan démb kenn ki ci Diourbel la dëkk muy benn góor goo xam ni am na lu ëpp juróom ñett fukki at bu ñu ko méngale nag dañ naan ka communautaire la waaye Babacar Diouf di suñu correspondant nee na góor googu daanul woon génn xanaa kan lii di mbir mi dañ ko ko wàll fële ca Kaolack moom am nañu juróom ñaari nit yoo xamante ni ni testé nañ leen ñu am feebar bi mu yóbbu Euh, ba feebar bi teroo ba léegi muy juróom benn nit ñoo xamante ni nii euh, fukki nit ak juróom yoo xamante ni ay cas contact lañu euh, te ñi ngi ko jëlee ci homme d'affaires bi nga xamante ni nii nee nañu moom moo fa yóbbu feebar bi ki ñu ko wax du kenn ku dul suñu correspondant bi di Ibrahima Jammeh ba tey ci biiru coronavirus la ñuy wax boobu ak léegi nag ñi ngi gis ni que cas importé yi di ñi feebar jëlee ko bitim réew ñi ngi gën a mën a lëmbee Sénégal collectifu sénégalais yi nga xamante ni nii ñu tàggatémbe fële ca France nee nañu li ñu bëgg mooy ñu wéy vol yi leen di indi fii ci biir réew mi ñu ngi sàkku it ci nguur gi ñu bañ leen a beddi benn yoon awa mbay wol yi nga xamante ne mooy indi sénégalais ya bloqué ci bitim réew dafa war a wéy lii di gis-gisu Ibrahima mbay moom bokkoon na ci kuréel gi nga xamante ne moo ëmb sénégalais ya bloqué ca France bu dee sax tey ñibbisi na ci njabootam moom mi ngi waxal yeneen moromam yi nga xamante ne tey ñu ngi ci àdduna bi bëgg ñibbisi te mënuñu ko te feebar bee leen fëttee gis ne tey bi ñu defee bilan bi cas importé yi dafa yokkaat def naa ne mos a egg euh, ci lim bi ñaar fukk ak juróom-ñaar euh, man nag yaakaaruma ne ni mu mel nii euh, jar na ñuy li ñuy xool poser ay questions nag quand mais nag euh, du warta tax ñu arrêté rapatriement yi parce que ay citoyens sénégalais yi yoo xam ne la dañoo nekkoon bitim réew tàgga témb fa war a ñibbi seen dëkk seen droit la Ibrahima mbay tamit euh, jiite kuréel gi ëmb directeur ressources humaines yi ci Sénégal di wax ne lu jëm nag ci rapatriement doomu Sénégal yooyu dañoo war a xoolaat niñ leen di toppatoo bu ñu ñëwee ndax bu ñu ñibbisee teg seen tànk ci Sénégal dañ leen a war a toppatoo xool leen saytu leen ba kaa importé du ci juddoo. li ci des kay mooy euh, prise en charge bi ku ñëw rek baax a a nag def lu autoconfinement nag sa kër nga toog fa sori na quand même ci suñu kër yi ni ñu bindee woo waaye loolu daal mooy solution bi parce que boo gisee léegi am na sax euh, ñaari vol yu par semaine parce que dañoo defoon benn collectif boo xam ne ñi nga xam ne dañoo bloqué foofu en France doon am tous les jeudi maintenant c'est Sénégal sax daf ci yokk samedi bi léegi samedi bu nekk am na vol buy ñëw ak jeudi fi nii sax am na nañu déjà ñoo xam ne embarqué nañ ci suba war a ñëw tey ci ngoon bu jeudi aussi am na beneen buy ñëw ba le premier juillet daal lay jeex. ay téeméeri téeméeri doomu Sénégal nekk ci bitim réew ci waxtu wi daal di fay bloqué. ñii seen liggéey moo leen fa yóbbu woon ñeneen yeneen soxla waaye ci weer wi passé la nguurug Sénégal organiser eh, seenuk rapatriement ba tax saa su ne am na ay groupe yuy ñibbisi eh, par nànk-nànk Awa mbay duñu la bàyyeegum ndax waxtaan nga ak euh, ki nga xamante ni xam-xam xam-xamam dafa màcc ci wàllu crise ak euh, catastrophe euh, mu wax ci cas importe yi di ñi nga xam ne dañoo jëlee feebar bi di coronavirus ci biir réew mi nee na feem mi nga xamante ni moom la nguur gi jël moom moo baaxul ndax dafa am jafe-jafe joo xamante ne am na ci ci niñ leen di beddee ak niñ leen di isole isolé na Alioune Boli waxtaan na ci ak Awa Mbaye bépp réew boo xam ne réew bu respecté sa bopp nga munoo bàyyi say doom nekk ci àll bi te doo leen wàllu loolu c'est quelque chose boo xam ne kenn waru ko discuter yeneen réew yi respecté seen bopp yëpp gis ngeen ko noonu la ñuy def dañoo quand même rapatrier seeni doom donc loolu c'est pas à discuter parce que droit la boo xam ne euh, dañ ko war a respecté dañu xool aduna bi tey nan la nekkee di gérer dafa am lu ñu tuddee euh, la stratégie des euh, du TTIT TTIT mooy lan première T bi mooy traçage maanaam di jéem a seetlu ñépp képp ku dugg ci jóge Dakar dem Touba wala nga dem Saint-Louis il faut que ñu mën a am euh, mu ñu mën la tracer ñu mën a xam ndax yow fan nga jógee fan nga dem et cetera sa adresse mu mën laa retrouver en cas de besoin deuxième fait bi mooy test il et puis bu dee cas positif la yóbbu ko ci centre de traitement yi ñeneen ñi nag bu dee ay contact la suivre leen euh, dernier thème bi mooy traitement bi effectivement bu ñu xasee yóbbu nit ki ci centre de traitement là on traite ñun nag boo seetloo Sénégal si dernier temps bi dañ faa aay trop macha allah vraiment gàcce ngalaama waa kër docteur ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ndax boo seetloo ñun euh, suñu euh, euh, taux de guérison ak létalité bi soo ko comparé yeneen réew Afrique yi wala ci àdduna bi sax da gis ni vraiment macha allah foofu am nañ fa succès bu rëy ci yeneen yi maanaam le premier T le deuxième T le I foofu moom il faut ak ñu xoolaat wala ay ay étranger awa mbay ca Louga moom euh, amatuñu ka garaaw ndax euh, ba fa feebar bi teroo ba léegi ñeen fukki nit ak ñaar ñoo ci am feebar bi euh, ci jamono bii nag ñetti nit ya fa feebar ñu enterré leen ca hôpital amadu Sakhir Mbay ñoom daanaka seen wér-gi-yaram gisatuñ ci daanaka doomi jàngoro bi juróomi fan ci weeru avril la fa feebar bi feeroon feeñoon ba tey Abdourahmane Polpuy bu mbas mi duggee ci région bu Louga ba léegi diwaan bi am ci lu toll ci ñeenti fukk ak ñaari cas yu positif bu coronavirus fanweer ak juróom-ñetti nit wër ba ñibbi seen kër ñett ñu leen di faj jamono ji ci centre de traitement bu hôpital régional ak kenn koo xam ne ñàkk na ci bakkanam département bu Kébémer coronavirus mujjee fa dugg moom mu ngi am ñaari cas benn kaa bi nekk pour district bu Daaru Muxti beneen bi nekk pour district bu Kébémer département bu Linguère moom juróom benn cas positif la am juróom benn cas yépp wër ba ñibbi seen kër département département bu Louga nag moom la mbas bi gën a laal ci biir région bile le am na ci lu toll fanweer ak juróom benn cas yu positif bu coronavirus fanweer ak ñaari cas ak kenn nit ki nga xam ne ñàkk na bakkanam district bu Louga moo ko enregistré ñaari cas nekk pour district bu Sàkkal ñaari cas tamit nekk pour district bu kokki ñetti nit ñi nga xam ne nag ñoo ngi leen di faj jamono ji ci centre de traitement bi moom mooy ñaari cas yi nga xam ne district bu kokki am na ko jamono ji ak benn cas bi nga xam ne moom la district bu Kébémer enregistré suñu sukkandikoo ci médecin chef de région ñi nga xam ne doomu jàngoro bi laal na leen nag ñoo ngi yëg tan bu baax ci seen yaram amul benn cas grave bi nga xam ne Louga enregistré na ko mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. Abraham Paul Pouy bu ñu jógee Louga dañuy dem ba ca Touba foofu nag benn centre de traitement buy faj Euh, ñi am fii di feebar coronavirus moom moo fa am euh, bi ñu ko taxawalee ba léegi benn ay bés la nasaraan di ko wax euh, une semaine ca Matla ca hôpital Matla vul Fawzeyni la nekk Makhtar Lo di directeur hôpital bi ne dañoo nemmeeku ne askan wi dañuy dal dañuy daw l'hôpital yi même ku ci feebar beneen feebar sax doo nangu dem ci l'hôpital yi nee na amul benn risque na gaañi ñëw faju si Marème Diop